aaya ji ci tegu nag suñu borom subhanahu wa taala mu ngi ci jàngale ba tey tedd ngay jikko de wane ne diina ji duhut diine yi ku la def lu bon nga def ko lu bon waaye diine yi ku la def lu bon nga defal ko lu baax la ku la def rekk defalal ku la defal nga delloo ko lu baax lam la defal ba wis ko moo tax aaya ji tegu ci di wax ne wala yajrimannakum bu mu togg leen shanaanu qawmin mbañeelaw nit an saddookum ngir liñ leen dëdduloo woon anil di walis jàkka ja xaraam ba de bu ñu xormaal loolu bu mu leen togg an taatadoo ngeen di jalgati di leen rey di leen rey mbaa ngeen di rey ñeneen ñu duhut ñoom te niroog ñoom wa taawanoo na ngeen dimbalante alal biri ci mbaax te mooy def liñ leen digal wa taqwa ak ragal yàlla te mooy bay liñ leen tere wala taawanoo bu leen dimbalante xalal ismi ci bàkkaar yi wal udwaani ak jalgati wattaqu na ngeen ragal laaha yàlla inna laa naka yàlla shadidul iqaabi ku tat la mu mbugal boo gisee aaya ji yàlla wàccee kenn du yàlla yonantu bi sallallahu alayhi juróom benni at ci gàddaay gi dafa fee déparé woon ne day dem umra ji juróom benni at a ngi nii demul màkka namu na màkka lool waaye màkka tamit namu na ko li ko màkka namee nag moo raw moom ni mu màkka saxaabaam yi tamit namm nañ màkka màkka namm na leen fekk nag waxoon na saxaaba yi ne leen da ngeen wër kaaba ga boole koogu watu ñii duufu duufu ngeen loj seeni hàddiyu ñay rendi hàddiyu rendi ngeen am sécurité kenn du leen wax dara jël leen seen bagage yi ñu ànd dem ca kaaba ga ñi départ nag jël seen hadaaya yi saxaaba yaa ngi sawar lool ngir namu giñ namu màkka yàlla dogal nag ba ñu demee ba ci palaas bu ñu tuddee Hudaybiya yonentu bi sallallahu alayhi wa ne nañu campé fii ci la yónni nag Omar ibnul Xataab la njëkk a yónni ne ko kaay nga demal ma màkka nga xamal leen ne damaa ñëw rek ngir siyaara si néegab yàlla bi waaye xeex taxut maa jug ñooña ne ko Omar ne ko dama bari ay noon ca dëkk ba te néew fay mbokk ragal naa su ma demee ñi ray ma sab yonantu kenn du ko gàntu waaye danaa la proposé koo xam ne soo ko yónnee li nga bëgg dana am kan la mu ne ko Sayyiduna Usmaan bari na fay mbokk te moom bariwut fay noonu boo ko yónnee dana doxal mission bi yonentu bi yónni ko Ousmane Ousmane dem wëyal mission bi ñu ne ko ah Kaaba gaa ngi bu la neexee wëral xajarul aswata ngi bu la neexee fóonal Safa ak Marwa ngi bu la neexee baaganteel waaye ki la yónni moom mayuñ ko mu jege si dëkk bi waxuma la Kaaba gi waaye mayuñ ko mu dugg ci dëkk bi. sayyiduna Usmaan di ndaw lu mat ndaw ne kaaba gi buy foor bañ koy wër yonentoo tax te mooy sama kilifa luñ ko xeeñ bëggatuma ko kaaba gi li muy foor foor comme xeeñ ngeen ko sama kilifa soxlaatuma ko kon ndaw lu mat ndaw lépp luñ xeeñ kilifaam bañ ko ko mayee na ko delloo foofa rek nag seytaan siiwal na rey nañu Usmaan yonentu bi ne ñëw mu woon ngir xeex waaye loolu de boo xamee danaa xeex jël loxoom day jooram mu représenté boppam jël loxoom loxob càmmooñ bi mu représenté Seydina Ousmane mu dóorante leen ñoom ñaar ne ñëw leen ngeen jaayante ci deretu Seydina Ousmane foofa nag ñi commencé jaayante rek ñu mujj gis Ousmane ndax kat ndawal buur saa yuñ ko rayee guerre mënta ñàkk ku rey ambassadeur mu nekk benn ci ci ambassade ba ci am réew faaw waa réew ma xeex ak yow foofa nag ndeke lañ lañ annoncé du dëgg Ousmane ñëw joxe mission bi ànd ak tuuti Suhayl xam Amr ñëw nekk tamit gouverneur boo xam ne wala nga ne mooy ambassade boo xam ne moo représenté ambassadeur boo xam ne moo représenté Makka ñëw tamit wax ak yonantu bi ay accords yu ñu doon signé wax ak moom accords ya ñu signé ko yonantu bi xam ne xorkat lañ mu ne àlliw yi nga bind ne leen lii la yonantu muhammad rasulullahi d'accord ak suhaylu ibnu amrin suhaylu ne ko dina rasulullahi ji ñu ko gëmoon duñ la xeex ak yow ba lay génnee dëkk bi defar rek muhammad ibnu abdallah mu ne àlli yow effacel ma muhammad mu ah, effacel ma rasulullahi mu ne ko yéeféer bu bon bi tax ma effacé ko wax wax mu ne ko deme ko ew du ma ko effacé dafa jëfandikoo teggin jëfandikoo teggee ñu ne moo ëpp loolu jëfandikoo ndigal mu ne ko kon tegal ma ko sama baaraam mu ñu teg ko ca mu effacel ko boppam su ko defee nag li ma ci tax may nettali loolu lépp yonent bi ne lañ leen seen àddiw yi xam ngeen yool bi te ñu demaat ñibbi léegi nag ñi dem ñibbi nag yàlla nag dogal nag bi ñu fi jógee ko ñoom jullit ñi ne dañuy dem pour war a xaji xajatul widaa war a ànd ak sayduna muhammad ca atam juróom-ñeenteel ma ñoom nag ñu gis ay xéeféer ñi bëgg nag wax yonent bi ne ko dañoo bëgg a dal ci kaw xéeféer yi daloon ci suñ kaw démb jëloon jëloon taxoon ñoo loj suñ hadiya yu ba lañ bëggoon bëggoon koo def maanaam matutoon yàlla nag wàcce aaya ja ne ko mbañee lal aw nit bu mu leen ngir lañ leen dëddloo néegam yàlla bi bu mu leen jooxe mukk ba ngeen jalgati dal ci kaw nit li ma bëgg daal dimbalante leen ci mbaax ak ci ragal yàlla lépp luy indi nooneel ak ak mbañeel ngeen sànni ko fële kon aaya ji day wane ne léeg-léeg ci nit ñi day am koo xam ne dafa bokk ak yow pas-pas wala mu bokk ak yow réew wala mu bokk ak yow couleur def la nga bëgg dëgg ca loola def ku la defut du jeex ab senegale saaga la en tant que Sénégal la dëkk Sénégal boo gisati rek di ko saaga foo ko teg ab jullit ray la en tant que jullit la rek jullit boo gisati ray ko nit ku ñuul walla nit ku weex def la lu bon nga bëgg a jël loola àtte ci nit ñu ñuul ñëpp walla nga àtte nit ñu weex ñëpp yàlla du ko nangu te loolu dafa bari loola nag la yàllay bañ yàlla moom yi mucc mu ne ña leen def sax. jéggal leen leen waxuma leen ña niroog ñoom te defuñu leen ca yàlla boobu kon nag walla yajrimannakum bu mu togg leen shanaanu qawmin mbañee law nit an saddookum ngir liñ leen dëdduloo anil masjidi walis jàkka ja xaraam ba de bu ñu xormaal ca Xudaybiya ba ngeen fay dem an taatadoo ngeen di jalgati bëgg dal seen kaw wa taawanoo na ngeen dimbalante alal biri ci mbaax te mooy defee li leen yàlla digal wa taqwa ngeen dimbalante ci ragal yàlla baxee li leen yàlla tere wala taawanoo bu leen dimbalante mu xasab genn taaga wala ta la woon alal ismi ci bàkkaar woo wal udwaane nooneel wa na ngeen sax ci ragal laa yàlla inna laa naka yàlla shadidul iqaabi ku tar la mu mbugal aaya ji nag boo ko jëlee dafay xaw a ci waxinu arab maanaa ci waxinu arab def gi kii def la bul ca dëgg ngir li metti sa xol nga dëgg ca bëgg a fayu bëgg koo tooñ ba tooñ bi ko kon diina ji diine ku la lebal lu baax nga fay ko lu baax ba wis ko ku la lebal lu bon nga jéggal ko la moo tax yonentu bi mu yónni woon ci moom diina ji muy wax ne addil amaanata ilaa man itamanaka lu mu ca teg wala taxul man xaanaka képp ku la hóolu ba jox la jooxeel lam la kóoloo lam la hóoloo bu ko xor bu la dee bu la hóoloo ba dégg la kàddu bu mu ko bu mu senn ci mbedd mi nga wax ko kenn wax ko kon téeméer te koo degee ne ko yow rek laa ko wax ku la dénk ba jox la pal delloo ko ko nu gën a rafet nam la ko dénkee woon ku la hóolu ba jox la alal delloo ko ko nam la ko dénkee woon waaye lum mu ca tofal nag fi diine ma ne ñëpp mooy wala taxun man xaanaka bul xor ki la xor mënoon naa wax kon xoral ki la nag jooxee la kóolu te ci ki la hóolu waaye la hóoluwut ba xor la tamit xor ko mënoon naa waxee noonu waaye déedéet makaarimul axlaaq la diine ji ëmb moo tax mu ne bul xor ki la xor kon yéen timit ngeen yéen a nga dem màkka di xumra ji ngeen dem ba xudday bi ñu gaaw leen wax leen lañ leen wax jëf leen lañ leen jëf seen xol tàng ba ngeen loj seen hàddu yi dem di ñibbi bu mu tax mukk mer moom a ngeen denc ko bëgg koo faj ca ña leen ko defoon wala ngeen bëgg koo faj ci ñoo xam ne defuñu leen ko waaye dañoo niroog ña leen ko defoon ndax dañoo niroog pas-pas déedéet laa yajrimannakum shana'anu qawmin dafay tolloog lii yaaram ba way wala qad taantu aba uyaynata taanatan jaramat fasaaratun baxdaha an yaxdabu mooy kat kurfeñ gii ma kurfeñ aba uyayna dëbb ko ko moo merloo fasaaratu yépp loolu moo togg tey fasaaratu ñoom ñépp mer nañ waaye xam nga ne kat kii kawlax boo ko dóoree kuy doomu kawlax bu koñ bu bëggee Kaolack dëgg dana mer ngir lañ bokk kawlax moo tax gisoon nit ñi sax tey buy nit di bëre bokk ak ñoom koñ luñ ca doon fayuñ leen dara waaye ña ngi ca kontaanaale ne suñ mbër la ngir lañ bokk koñ ba suñ ko daanee ñoom daanuwuñ yow bëree ba daanuwoo lu ciy sa yoon ngay daanuwaale ca daanoom nga di xëm mën nga cee ñàkk sa bakkan ba dee ca xaw looy wax yàlla boo demee kon loolu day am. jikko yooyu la fi lislaam fekkoon nag di ko buddi di ko buddi par benn ba jeexal yépp kon kenn du yàlla kenn du lislaam kenn du sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ñu jàngal lislaam bu leer bi mu tofal ca ne mu tofal ca ne xurimat xaraamaleef na aleykum ci yéen almaytatu médd lekk medd wadda muug dereet juñ puufu xaramal nañ ko ci yéen ci juri kër yi wa laxmul xinsiir yi ak yàpp mbaam xuux xaramal nañ ko wamaa ak lépp loo xam ne uhi la yëkkatéef na ca rendiga li xayri laay ci lu duhut yàlla bihi ca moom wamaa ak lépp loo xam ne uhi la na li xayri lu duhut yàlla lu duhut tur yàlla bihi ca rendiga ba tey xaraamal nañ wal mun xaniqatu gàtt bu xerendiku wal mawquzatu ak gàtt boo xam ne dañ koo sadd aw xet walaw xeer walaw muul ba mu dee wal mutaradiyatu bu bartandiku bàyyeekoo fu kawe daanu mbaa mu bàyyeekoo fu suufe daanu fu gën a suufe wa natihatu ak buñ mbëkk bi wa maa akala ak lépp loo xam ne lekk na ko sa boo gar yi illa ma zakaytum lu dul loo xam ne jot ngeen ci moom ak rooxu te ngeen rendi ko wa ma zubiha ak lépp loo xam ne rendeef na ko ala nusu ci turu xiram yi wa an tastaqsimu ak lépp loo xam ne yéen a ngi sàkku ak xàtteloom wala ak séddaleem bil aslami ci bant yi karta yi ci bant yooya nga xam ne moom ngeen di xamee li eh, seeni mbir zalikum loolu la seen fisqun génn ak topp la al yawma tey ya isa naagu na la seen ñi nga xam ne kafaroo wéet nañ ci xéeféer yi min diinikum seen diina ji d'accord nañ ne dootu leen murtat mukk tey lañ naagu ne diina ji dootul yàqooti mukk kon nag falaa taxshawhum bu leen leen ragal wax saw nii ragal leen ma al yawma tey ci bisab ajuma ji ci palaas bi ci arafa gii akmaltu laa matale lakum ñaal leen diinakum seen diina ji wa atmamtu matal naa ba tey alaykum ci yéen ni'mati sama xéewal wa diitu tànn naa lakum ñaal leen al islaam al islaam diinan muy diine kon yàlla ngoog yim xaraamal lay wax si yàlla xaraamal na ci jullit bu mën doon muy lekk medd médd nag mooy lépp lu dee dee ak naturel dafa jékki-jékki rekk dee walla sax dee gudduhul dee ak naturel duur nañ ko bam dee walla mu am fu mu daanoo dee yooyu yëpp médd la charia tere nañu lekk ko lam la may nga lekk daal mooy loo xam ne yaa ko rendi te mu nekk lu dagan a rendi su boobaa dagan naa lekk deret joo xam ne fa dajalikoo nga rendi mu puufu wala nga jam mu jékki-jékki puufu génn jooja deret sobe la moo tax yonent bi daan wax ne yàlla de xaraamal na ci sama xeet wi medd waaye nag daganal na na méddam méddam géej méddam géej mën nañ koo lekk te mooy jën yi ak lépp lu dëkk ci géej gi soo génnee woon mu dee médd la waaye mën nga koo lekk noona mu ne sama borom xaraamal na ci ñun dereet yi waaye ñaari dereet daganal na ko mooy dereetu dëmbeen bi ak dereetu res dereet ju dajee rekk la waaye fa dajee ci dajale yàlla waaye deret ji nga xam ne nag yow yaa ñàdd gàtt bi rendi deret ja puufu génn loola sobe la wala nga jëm gàtt bi deret ja puufu génn sobe la wala nga jam lu mu mën a doon mbaam xuux léppam sobe la lenn rek la ca borom xam-xam ya daganal ca moom mooy kawar ga buñ ko daggee maalik ne na daggan na laab na dagan na jëfandikoo ko kawar mbaam xuux waaye loo waxati ci mbaam xuux lu dul karaw ga rek xaraam na bépp gàtt bu dagan ni ki xar bëy ngay reendi te ba koy rendi dangaa tudd turuwul yàlla tudd xiram turu xiram nga ko rendee mooy rek gàtt yi ñu tural géej gi yi ñu koy rendi rab yi nga tudd ca turu yonantu mbaa turu sab sëriñ loolu yëpp kenn du ko lekk su fekkee nag dangaa tudd turu yàlla ba pare tudd sa turu sëriñ wala sa turu bu yonantu wala sax nga tudd yàlla doo tudd xiram dañ ko lekk ndax turu yàlla wa mooy kawe loola yaalu wala yu'la alayhi moo tax alquran wala taakulu mimma lam yuskar ismullahi wa innahu la fisqun bi ci tegu tamit képp koo xamee na nii dafa wedd yàlla murtat bu rendee ak rendeem kenn du ko lekk waaye buy nag ab kitaabi yu la muy jaa jaamu téere wàcc na ca njaboot njabootam yonentu yàlla Isaa wala Muusa seen ak reen di dañ ko lekk loolu tamit sax danaa ci ñëw léegi nag mu commencé détail gàtt bi nga xam ne dafa xerendi ci buum jamonoy jaahiliya dañ daan xew gàtt ba mu ne ñadd muy tëb di fétti féet ba dee nga lekk loolu loola xel mu rafet rafet lu wut ko yàlla araamal ko jamono jaayile dañu war ab gàtt di ko jam ay móol ak ki ay weñ ak ki ay xeer ak i ay xet ba mu dee ñi lekk yàlla ne xaraamal na ko moo tax mu ne wal malquusatu gàtt bee ñi xeew ba mu xerendeku moom la mu ne wal mun xaniqatu dañ daan jëla timit gàtt mu mbëkkanteeg moromam ma ba dee ñi lekk ko wala sax ab oto wala jumtukaay bu mën a doon dal ca kawam mu dee ñi lekk ko yàlla ñëw xaraamal ko ne wan na teexatu buñ mbëkk ba moo xam la ko mbëkk moromam la moo xam la ko mbëkk tabaxa daanu ci kawam moo xam la ko mbëkk oto la wala sareet la jumtukaay bu mën a doon daal bu ko mbëkkee ba mu dee kenn du ko lekk dañ daan dem tamit jamono jaayilee yi ab gàtt dem wëtti tilli ya lekk ja wala bukki ya wala gaynde ya ñoom ña xam mànki gu day ni di lekk ndeseetu gaynde wala ndesetu till xam nga loola sax xel mu rafet rafet lu ko waaye gàtt yi ma tudd muy ñeent yi yépp wal mun xaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wal natixatu wa ma akala sabu su ngeen ñëwee fekk moom ci boppam ma nga ma ngay dund bakkan nga fa rooxu gaa nga fa deehut mazhabu shafii yu moo ci gën a yombale dafa ne fekk fekk nga ca bakkan daal nga rendi deret tuuru mu yëngatu wala mu yëngatu su boobaa lekkal dara nekkut ci imaamu Malik ne déedéet soo ko fekkee ci xaal boo xam ne rendi mu dee ñàkk rendi mu dee soo ko rendee tamit kenn du ko lekk mu jël nag xaal yooya nga xam ne rendi mu dee ñàkk rendi mu dee tënk ko muy juróom ñu ko tuddee maxaatilul xamsa ba ca njëkk mooy yax bi jàpp ca loos wa dooree ca bopp ba jaar ca doq ga jaar ca gannaaw ga woowa yax bu dammee rendi mu dee ñàkk rendi mu dee kenn mun a dund ak loos wu damm wala yaxab di gannaaw bu damm ku mën a dund ak moom xamut boo ñëwee fekk ko mu accidenté wala mu doon mbëkkante wala ñu sànni ko xeer wala xam lu dal ca kawam ba yuur gay tasaaroo hee rendi mu dee ñàkk rendi mu dee Malick ne na baal mu dee rek kenn du ko lekk ndax nag nit mën naa nettali bis bañ daggee tànkam ba wala weer wa wala baaraamam yaa nopp ya waaye waxtu kenn mënta nettali xat ma sama yuur ga tasaaroo doo ko dégg ñeneen ña ko nettali waaye doon yow lu ñu tuddee wadaju muy aw daaj te mooy ñaari siddiit yi nga xam ne ñoo séq boli nga xam ne booy reen di gannaaw booy daggee boli gi da ngaa war a daggaale ñaari siddiit yooya ñaari siddiit yooya séq boli bu ca benn ba daggee mbaa ñi bokk dagg ñoom ñaar reen di mu dee ñàkk reen di mu dee la Maalik ne bu ko kenn rek mbaq ga moo bënn borom mbaq gu mën air ba dugg ca butit ya butit ya nekk ca biir mbaq ga bënn dee rek kenn mënu ci dara baljat ya ñoo juuru muy buti yi dafa juuru carrément su boobaa tamit kenn du ko lekk yëpp moom la Malik tënk tuddee ko xam sax waaye buy saafee yu moom daal gàtt ba lu ko mën a dal nga ñëw fekk ca bakkan nga jubale penku reen yi ne bisimilah yi rek mu wéqu lekkal li lii la saafee yu gëm Malik nag moom lu gàtt bi feebar feebar comme yii juróom yi dara nekkut ci. lu accident ba métti métti te juróom yi fekkoo ci benn rendil dara nekku ci buy gàtt bu feebar nag Malick nee na boo rendee deret yool mbaa mu yëngatu lekkal dara nekku ci waaye nag nga rendi mu ne cadd dara yëngatuwut waaye ba ngay rend ak deena léeg yi nag yu feebar na de nañ ko reen nañ di paaka ba ñeen di paaka fekk deena bu yàgg nga rendi yëngu wéqu defu dara nga ne kay rendi naa ko waaye rendi woo dara medd nga rendi lii nag tabaarakallaahu mooy ne lislaam lislaam dañ koy topp ci li mu yoonal duñ ko topp ci li ñu neex duñ ko topp ci xel xéeféer yi ñoom ji àttewoo ci xel dañ daan wax ne waay waay yéen a féex yéen jullit ñi yéen yéen a gën yàlla yéen bu ngeen rendee ne dagan na lekk yàllaam lëmm rey ngeen ne baaxut xam nga loolu waxi xel rek la mooy la si si ba waxoon rek ilimaan ja ñëw di ko laaj na ko waaw man de dama amam xar mu rëy lool ma sonn ci moom lool yafal ko lool lu ne def naa ko ci yàlla dogal mu xëy dee ma lay laaj su fekkee dagan na ñu togg ko su fekkee daganu ñu lakk ko ñaar yi rek benn ma ci indi kon moom laajal na boppam tontul na boppam ko xeboo ne ko demal rek te génn ca kon aayaat yii ma doon firi lii la ci doon yàllay jàngale moo tax sama borom ne xurimat xaraamaleef na aleykum ci yéen almaytatu médd xaraam na ci yéen ak lekkam wa damu ak deret ju ñu puufu wa laxmul xinsiiri ak yàpp mbaam xuux wa maa uhila ak lépp loo xam ne yëkkateef na li xayri laay lu dul turu yàlla bi ca rendiga wal mun xaniqatu ak gàtt bu xerendiku ba dee wal mawquzatu ak bu ñu sadd ci xet mu dee wala mu hegg ca kenn ci maqatal ya bu ko defee wal mutaradiyatu ak bu barsandiku bàyyeekoo fu kawe daanu fu suufe wala mu bàyyee bàyyeekoo ci suufe jëm ci fa gën a suufe mu mel ni teen wa teexatu ak bu mbëkk bi wa maa ak lépp loo xam ne ak lekk na ko saboxu gar yi illa ma zakaytum lu dul loo xam ne jot ngeen ci moom ak rooxu rendi ko kooku moo tax ñu ne ilaa gi maanaam istisna wu mun xateex la wa ak lépp loo xam ne zubiha rendi leef na ko ala nusu bi ci turu xiram yi wa an tastaqsimu ak lépp loo xam ne da ngay ne sàkkoo ak séddaleem bil aslaami ci bant yi karta yi bii rek moo ci fukk benn ñoo xaraam bii rek yi ci fukk yëpp dañ koy lekk bii rek mooy bu ñu jëfandikoo su ko defee nag yàlla ne zaalikum loolu la seen fisqun génn ak topp la kon gis nga ko wa an tastaqsimu bil aslaam aslaam jamu zalamin bil fathi mais bu la neexee nga dàmm ko ne zulamin ay bant la doon doon yoo xam ne dana mat juróom-ñaari bant dafay xaw a niru bant fett waaye nag fett lu ci mën a dugg bant bu ne dañ ca daan bind dara jébbal ko nag ki nga xam ne moo daan garde këram gi kaaba gi soo ñëwee ne ko maa bëgg a tukki mu yëngal bant ya bantab amara nii rab bi bu génnee mu ne demal xam nga ñu ngi sosal yàlla yàlla fa la koo digal nga naan amara nii rabbi sama borom ko digal fa la ko yàlla digalee beneen ba dañ say bind naha nii rabbi su fekkee booba moo génn ñu ne la sa tukki mi du baax boo bëggee jabar ñu ne du baax su fekkee nag min xayrikum moo génn te yow da nga doon laaj doom ji ndax sama askan la bokkam bokkut ci ndax sama jabar njaaluwut sama gannaaw nga ne bokkut su fekkee nag dafa nekk mulsaqun mu tekkee na yow ci sa askan la bokk su fekkee àqalu la fekk dafa am kuñ ray ngay laaj ndax ñu ko war a diyee nangam mu génnee àqalu nga xam ne dañ ko war a diyee bu génnee xaflu ji firi sàggan nag dañuy wëndee laaj bant ba fekk ba li ngay bëggee am kon nii lañ ko daan doxalee ka daan dawal karta ga nag dafa daan nekk ca kaaba ga mooy waree woon bant yi boo ñëwee téeméeri dërëm nga koy jox mu door laa dawalal karta gi lii nag du hut lu tumuranke mooy li fi xew li nga xam rek demal ci tafsir bu ñu tuddee maraax yi mu ne aka niroog ki jaaxle dem di seeteeb sëriñ mu ñëw ne ko mankat dama bëggoon nga gisaaneel ma sëriñ ba wëndeel pettaaw ya hée ne ko nangam ak nangam jigéen gi taxaw nag ko am yaram la de xanaa sa nit sa nangam la man de dañ maa sàcc ma bëggoon nga gisaaneel ma seetal ma ca nangam mu xool ca ndox ma fëgg boppam xale bi mu ne ko ko war fas a ngi ne ko mu ne ko ngi mi ngi lay tuur rëndam naan mu ne ko jugal ne ko mu julli du dara yëpp daganut yëpp ay xeeti seet la yoo xamee na nii bu xaaba yi ñoo ko fi def njëkk lislaam lislaam ñëw tere ñu yooya lis ñëw tamit comme ni ñu teree gaaflu di tukki rek génn jigéen traversé la wala nga nekk ab taximaan doo njëkk sa bu la jigéen njëkkee arrêté doo ko nangoo jël nga ne boo njëkkee jël client ab jigéen sa dara du baax lislaam ñëw xaraamal gaaflu xaraamal buxaabahu xaraamal gisaanehu xaraamal mbooleem yooya yépp su ko defee nag remplacer ñu ko lu ñuy tuddee istixaaratu istixaara nag gi dagan mooy gi yonent bi jàngale a Busayri yu andi ko kii andi ko kon Buxaari yu andi ak muslim ak mboolem asxaabu sunan yi sax am nañ xadis boobu Tirmisi yu Ibnu Maaja Abu Daawuda Nasaayi ñoom juróom-benn kutubu xadis yëpp andi nañ xadis bi mu bokk ci xadisu jaabir ya jaabir wax ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna al istiqaarata kama yuallimuna suuratan min al qur'ani mu ne yonentu dafa na jàngal listiqaar comme ni ñu doon jàngalee aw saar bu wàccee ci alquran nu mu ñu jàngalee istixaara muy ne ida hamma ahadukum bil amri falyarka rakaatayni min gayri lfaridati mu ne kenn ci yéen bu hittewoo bëgg xam dara tukki bi dafa bëgg tukki xam dana neex xam du neex dafa bëgg takk jabar xam na jublu naam borom wërsëg la am borom doom la dafa bëgg jëf jëflante ndax dana jubam du jub yonentu nee na na julli ñaari rakkaa benn bi fatiha qul yaal kaafiruuna benn bi fatiha ci waxtu woo xam ne waxtu daganal la naafila te bu mu nekk julleeg farata man ngaa bàyyi ba guddi rek ba suuf sedd ba julli ñaar rakkaaya boo paree gannaaw yaa ngi ànd ak njàpp lal bi ngay tëdd na laab yére bi ngay sàngoo na laab su ko defee nga jàng ñaan gi ne allahuma inni astaxiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa asaluka min fadlika al azimi fa innaka tuqaddiru wala fa innaka taqdiru wala aqdiru wa taalamu wala alamu wa anta allaamul guyub allahuma in kunta taalamu anna hada al amr xayrun lii fi diini wa maashi wa ajila amri wa ajilahu faqdurhu lii wa yassirhu lii summa barik lii fiihi wa in kunta taalamu anna hada al amr sharrun lii fi diini wa maashi wa ajila amri fi diini wa maashi wa ajili amri wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur lil xayra xaytu kaana su mardan su su mardani bihi nga tudd sa xaajo nag lii ngay wax door a tëdd su boobaa la cay lu gën yàlla dina la ko wan na fekk nag nga xam nañuy firee gént boo mënta firi gént tamit bu la wanee mbir bu la wanee ndox xamoo li muy tekki mbaa mu wan la safara xamoo li muy tekki mu wan la bâtiment tabax xamoo li muy tekki mu wan la dugub li muy tekki mbaa mu wan la mboq mbaa mu wan la gerte su boobaa looy wax day laaj nga xam firi gént boo ko xamuta def lii tamit doo ko doo ko man kon dangay dem ci ilimaan jëla gën a jege nga naw ko ci ragal yàlla mu ne man na ko mu defal la ko ndax def man na defal sa bopp man na seet ku la doy mu defal la tamit man na waaye bul seeti bu xaaba yi de bul seeti kat yi de ñoo ñëpp bu leen seeti kon yii moom ngay wax sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko fa innaka taqdiru wala aqdiru wa taalamu wala alamu wa anta alaamul quyub allahuma in kunta taalamu anna hada al amru xayrun lii fi diini wa maashi wa amri wa aajilihi faqdurhu lii wa yassirhu lii suma baarik lii fii ba ñaan nga jeex lii mooy listixaar waaye seet ci ndox meeg tabaarakallaahu seet ci suuseeg xeet yooyaag tomb fay dugal fale gëmmu jël fële gëmmu jël kurus gëléeg yooyu yëpp ñoo ko ci yokk waaye bokkutooñ liñ ci li yonent bi indil ak lim ñu digal kon yàlla ngoog fu mu xem nañ fa am lu mu digle nañ ko def lañ man la mu tere na ko nañ ko bàyyi al yawma akmaltu lakum diinakum mi ngi wàcc ca yow mu arafa muy xaj gi yonent bi mujj xaj te moom rek la ma sa xaj timit gannaaw bi ko yàlla yónnee njëkk loola xaj na ñetti yoon xumra na tamit ñetti yoon ñeen na ñene xaj na ñeenti yoon xumra na ñeenti yoon waaye gannaaw bi ko yàlla yónnee ba ni mu génn xat mu daal benn yoon dong la xaji mooy xaj gi benn yoon te bi la mosa a jug nam ma xumra ji te mooy ñi fo ñi ñi gaw leen ba mënuñoo dem muy xatam juróom-ñett juróom at ca gàddaay ga ñi gawee leen ca Xudaybiya su ko defee nag. aaya ji bi muy wàcc yonantu bi mi ngi ci kaw gëléem ga gëléem gay karkare attanut diis ak wax ji yonantu bi mujj wàcc ba mu paree nag saxaaba yi dajee bari lool wër ko ca arafa bisab àjjuma la woon tombeeg bu soo bisab juróom-ñeenteeli fan ci weeru tabaski mu jàng aaya ja al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum neexmati wa raditu lakumul islaama diinan ba ko yonentu bi jàngee omar xataab jooy saxaaba yi ne ko yaa bëri man-man diina ji niñ ci sonnee ñaar fukki at ñett ñu ngi xeex ak xéeféer yi génne nañu suñ kër yi rey nañ suñu njaboot nangu nañ suñuy alal fukk nañ ñi seeni bët ñi ñàkk nañ seeni loxo ñi ñàkk nañ seeni jabar ñi ñàkk na seen jabar ñàkk nañ leen ñii seeni baay ñàkk leen ñii seen doom ñàkk leen diine ji dem ba mat yàlla gërëm ko teg ko ci kaw diine yépp dara muntut koo yàqati ñépp war a kontaan war koo feetu yow ngay jooy mu ne yàlla mosta dañ di ñu dolli waaye nag comme lu mat comme diina ji mat na fu ñu jëlee tee ndollam te lu dolleeku lu nekk ci wàññeeku lu jëm luy wàññeeku ci jeex la jëm yonent yàlla Muhammad mi sallallahu alayhi mission lépp moo doon diina ji mat comme diina ji mat na lu mu defar ci day dem lii rek a tax may jooy kon Omar mooy ki xëppoon dégg ci saxaaba yi benn yahood ñëw na ci moom ne ko seen téere bi de gis naa ci aaya joo xam ne ñun ñii suñ ko amoon danañ ko jàppal feet bu jotee ñi feetu ko Omar ibnul Xataab ne ko jan aaya la mu ne ko mooy alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Omar ne ko xam naa bis ba mu wàcc xajjuma la xam naa weer wa tabaski la xam naa lam ca tombeek juróom-ñeenti fan la xam naa xew-xew ba mu tombeek ah, arafa la xam naa waxtu wa diggante tàkkusaan la ak timis fekk naa na yonentu ba mu wàcc na mu defoon xam naa ko dafa taxawoon moo tax Omar ne ko nag jàpp nañ ko feet ndax bis booba bisu Arafa feet la ci ëllëg sa sax mooy tabaski feet la moom kenn mooy feet goo xam ne diine yépp ci dëppoo nasaraan yi seen am nañ ca feet ca bis yi am nañ ca feet seen feet la majuusi jaamakatu safara yi seen feet la julli ñu seen feet la mooy feet goo xam ne mbooleem milal yi dëppoo nañ ca su ko defee nag yonent bi ca feet googa mu waxee lii ca Arafa ci la jàngab discours ne leen yee am na jaam boo xam ne boromam tànnaloo na ko dem wala des moom nag tànn na lii dul jeex ci kaw lii jeex tànn la la nekk fa yàlla Aboubacar door jooy moom saaba yi commencé waaye yaa bari man man looy jooy yow jaam buñ tànn loo la wax ku la wax ne moom la. yonentu bi ne leen eh, Aboubacar yéen a amul dégg yonentu bi dafa ñoo tàggee boppam ci discours am bii dafa ñoo tàggee boppam moo tax ndeysaanam keroog ba mu defee discours bii aaya ji wàcc juróom-ñetti fukki fan ak benn la dundaat wuy ji boromam juróom-ñetti fukki fan ak benn keroog la wax jàppee leen ci man ni ngeen di jaamoo yàlla ci xaj xudu anni manasikakum wax ne nag xamaat na dootuma dajeeg yéen gannaaw xat mi ci xaj wallaahi xat mooma lépp lu ñuy soxla ba bay xatuna bi tukki yonentu bi wax na ko waxoon na ne maa ngi dem waaye bu leen nekk sama gannaaw di dóorante kenn ku ci nekk di dóor sa morom ay jaasi ngeen ni rayante mi ngi mel ni ren la ko waxoon fu mu ne nii li xew mooy jullit bu rey moromam jullitam mooy li xew tam nga ne alaa alaa laa tarjiu baadi kufaaran yadribu baadukum riqaaba baadin tey loolu moo xew kenn ku ne ñu tuddee leen ay ay ay ay kuréel eh, ay jihadiste ay terroriste ay baatiriste yoo xam ne kenn xamul fu mu jëm tey mooy li xew ñee dem ba fekk jullit bu dee nokkal wut nitu yàlla nga sulli ko sulli xabroom ba ñàkkee xorma kii dund xematoo ci ba ñàkkee xorma ki génn àdduna kenn xamul lan lañ yonent bi ne kon nag bu ma leen wan gannaaw rek ngeen di dóorantee jaasi di xeex tey problème bi lëmbee àdduna mooy jullit buy xeex ak moromam ñu waroon a bokk lu ñuy xeex ñoom bu ñuy xeex dañuy neex a duma mu pare ne leen waaw li ma leen di laaj ndax dëkk bii mooy ban di ko laaj ba saaba yi foo ne fa bëgg a soppi tur wi mu ne leen bis bii mooy ban di ko laaj bañ fa ne fa bëgg a soppi tur wi mu ne leen waaw place bii mooy ban bañ foog ne dañu fa dafa bëgg a soppi tur wi leen weer wi mooy wan bañ foog ne dañu fa bëgg a soppi ñu ne ko place bii mooy arafa weer wii mooy weeru tabaski bis bii mooy mooy bisu arafa mu ne yàlla de xaramal na dereetu jullit ñi ak seen der ya ak seen xalal ya nim xaraamalee seen bis bii ci seen weer wii ci seen dëkk bii ndax jotal naa bu waxee lu day téen nag day téen ci asamaan su ko defee ñu ne ko jotal nga mun a yow yàlla seedeel ne ne may ngi ma yónni woon seede nañ ne jotal naa qaalu nashhadu annaka qad balaxta qaala allahuma ishhad allahuma ishhad wa yushiru bi sababatihi ila samaayi ala hal balaxtu yaquluna hal balaxta risalata wa addayta amaanata qad balaxta risalata wa addayta amaanata yaqulu allahuma ishhad yàlla yàlla seedeel foofa nag yonentu lu ne wax na ko boo demee anas dafay wax ne lu xew lu ne dañuy dem ba ne mi ngi nii rek xam ko ndax yonentu waxoon nañu ko avant muy ñëw waxoon nañu koy war a juddu na muy juddoo ba muy bis bi àdduna bi tukki lu war a beese lu nekk xamal nañu ko ba tax na lu nekk rek bu ñëwee ci suñ bët yi dañ koy miin xam ko fàttaliku ko ca la ñu yonent bi waxoon discours am boobu bàyyiwut dara ci la santaane dénkaane nañ yërëm ji jigéen ñi nañu nañu dawal yërmande ci jigéen ñi bu baax a baax a baax a baax a baax euh, istawsu bi nisaayi xayran foofa tamit dénkaan na fa ku ku xilife ku ne yore entreprise wala leneen na nga xilif yërëm ñi ngay xilif dama bëgg a wax ne daal discours ba bàyyiwul dara boo demee ci téeri tafsir yi dinañ la ca wax lu bëri demal ca bahrul madid demal ca tafsiru kashaaf demal ca maanaam fathul qadir demal ca euh, faxru yi demal ca jalaal demal ca maraax yi euh, demal ca ruuxul bayaan yooyu yëpp boo ca dem dana la ca wax lu gën a yaatu lii nga xam ne ma la ko cee tënkal ngir waxtu wi fa manu tara képp koo xam ne loru loof na ko fii max masatin ci xiif ba mu jëm lekk ci lenn ci liñ xaraamaloon liñ paase xayra mutajaanifin te mbir moomu duhut aji jeng li li jëm ci bàkkaar muy mooy yàlla fa inna laaha naka yàlla xafoorun jéggalaa kon la ci lekk ga rahimun yërëmaa kon la ca daganal ga kon aaya jooju tegu ci dafa jokku ca la jiitu woon ca yu xaraam rek li ci tegu ci alyawma ya isa alladina kafaru min diinikum ak fala taxshawhum waxshaw neeg alyawma akmaltu lakum diinakum ak yépp jumlatul i'tiraad la waaye yii dafa jokku ca ya xaraamoon yàlla wane ne maa leen waxoon ne lekk medd xaraam na maa leen waxoon ne gàtt bu xerandiku dee ngeen lekk ko xaraam na bu ñu sadd yet wala duñ ko mën a sadd mu dee xaraam na tuddal leen fukk yu xaraam waaye mu ne képp koo xam ne danga xiif xiif bi lor la ba loo lekkut dee li fi sës mooy medd mi kese sharia may na la nga lekk ko lekk gi ko lekk doo ci am benn bakkaar Maalik nag mu ne waxuma lekk mais lekk ca ba regg soo yoree bool wala sax bóoli daggal nga def ca yóbbaloo ko boo xiifaatee te xamoo leneen lu dagan nga lekkaat ca su fekkee ne nag amaan nga leneen gannaaw bi nga xiifee sànni ko loolu mooy gis-gisu imaamu Malik yow mooma nag loru ba tax ngay lekk médd moo xam fa laa fekk ci teewaay dagan na moo xam la laa fekk ci tukki moo xam tukki ma tukkeem topp yàlla la mbaa tukkeem mooy yàlla la Malik ne na yëpp dagan na loolu mooy gis-gisu Malik imaamu Shafii yu moom ni mu déggee gayra mutajaanifin li ismin mooy na fekk bala ngaa dagana lekk médd bu mu la fekk nga nekk ci tukkee mooy yàlla kuy wàlli làmb kuy dëngee ay waajuram kuy agressé di dagg yoon kii nag lu mu loru loru saafi yu na amul droit di lekk médd waaye Malik mu dafa ne falaa farqa bayna al aasi bi safar wa taayici bi fa innahuma kal xaadiri fa yakulaani minhuma lii la imaamu Malik gëm ba tey tamit gis-gisu saafii yu mooy ne sañ nga caa lekk ba mëdd sa xiif bi waaye bu ca regg boo ca reggee xaraam na dugg nga ci xayra mutajaanifin li ismin Malik ne man nga caa reg ba yóbbu ca yóbbal boo xiifaatee tam sës fa nga lekk lii mooy seen gis-gis yàlla ku bari yërmande la ku mën a jéggale la Ah, am na tamit nag yeneeni aayaat tabaarakallaahu yuy ñëwaat di yàlla wax ca di tegtale tamit affaire yi médd ci yeneeni place ca wàllu woowa moo tax wax na feneen ne fa man uttara gayra wala àddin fala isma alayhi loolu kay lu leer la képp waxam loru loof na ko ba tax mu lekk médd te duut kuy sàkku li xaraam bàyyi fi li ko dagan duut kuy jalgati waaye waaye kooku bàkkaar nekkul ci lekk googa mu lekk médd Maalik nag nee na su fekkee danga loru medd nekk fi xalali jàmbur nekk fi mu ne kon jiital lekk xalali jàmbur ja su fekkee doo ko jëlee loru fekkee na nga ca nag ne boo lekk xalali jàmbur ja waa ji la bàyyi ko fa lekk médd mi bu fekkee tamit ñaara fi sës ñaar yu xaraam moo ne sa kanam soo lekku dee ñaar yu benn ba dañ caa wutee benn ba ñëpp ca dëppoo su boobaa jëlal bu ñu wuutee ba te bàyyi fi buñ dëppoo bi su fekkee buñ dëppoo bi rek a fi sës nag boo lekkut dee lekkal ba regg te nga dog yóbbuwaale boo gisee leneen lu dul moom nag nga door a sànni loola loolu mooy gis gi suñu maam Malik aaya ji tegu ci moom kon loolu lay wax su ko defee nag. aay ji tegu ci yasalunaka maada uxilla lahum bi yàlla waxee yi xaraam tudd ca fukk ak benn fukk yëpp yu ñuy lekk la benn ba lu ñuy jëfandikoo la muy wàllu karta yeeg seet yeeg yu mel noonu kon saaba yi nag ñëw ne ko waaw li xaraam fa bëri de li dagan nag lan la safaan ba kay moo xam li dagan a bëri ndax li li fa bëri ba kenn mënu koo lim li xaraam tuuti bañ mën koo lim ndax loo dégg ñu mën koo lim rek fa tuuti waaye lu bari kenn mënu koo lim te yàlla li xaraam rek lay lim waaye li dagan kenn mënu koo lim ndax cosaanal mbir yi ci usool mooy lépp a daganoon ci biir li dagan nag yàlla mi nga xam ne mooy médecin wu médecin yi li ci baaxul ci jëmm baaxul ci santé baaxul ci xol xol maanaam sib na ko mu xaraamal ko amul lenn lu yàlla xaraamal ngir tënk nit waaye lim xaraamal da koo def ngir tinki nit moo tax lu yàlla xaraamal ba mu koy xaraamal mbaam xuux kenn xamul kañ la léegi médecins yi dem nañ ba turwe ne mbaam xuux dafa am yax ay sax yu sew yuy jàpp sa siddiit yi moo tax ku koy lekk doo màggataalee tànk bala ngaa dee doxee ñett tànk te sa dox ba du gaaw ñaari tànk cosaan yi ak dokk ba ngay sukkandikoo kenn mënu ci dara ak yeneen ak yeneen sàngara demeet amul lenn lu yàlla xaraamal lu baax ci nit léegi nag bañ ko waxee mu commencé nag war leen a indi li dagan cim tuuti jibril ñëw nuyoo yonentu bi ne ko entré ci waxin exil bismillah jibril taxaw nanguwut dugg yonentu bi ne ko lu tax nga diisuhu ñi digal la nga dugg te dugguloo mu ne ko ñun laa nadxulu baytan fiihi kalbun ñun duñ dugg ci kër gu am xaj ci la yonantu bi digal Aba Raafi nekkoon na rey xaj yi nekk ci war a yépp bu fi benn xaj des na rey ñëpp ci lay rey di rey di rey ba yegg ci benn xaju benn jigéen bu koy bawal guddi mu yërëm jigéen nga bàyyi ko xaj ba ñëw ci yonantu bi wax ko ko yonantu bi ne ko dellul nga rey xaj ba mu rey ko ñëw ci yonantu bi su ko defee nag laaj ko ne ko nag lu yàlla dagganal kon ci ñun nag keroog la yonantu bi wax leen xaj yi yàlla dagganal te mooy xaj bu ñuy jariñoo xaj boo xam ne dafa lay rëbbali ngay lekk xaj boo xam ne dafa lay gardeel sa kër gi wala mu lay gardeel sa jur gi yu mel noona waaye xaj boo xam ne tubaabe rek xéexée kooka baaxul léeg-léeg sax nga gis ci tubaab yi ñoo xam ne lañ man ci seen xaj bi mënuñ ko ci seen mbokk mi dañuy fere ci xaj di ko pikiir di ko sang di ko tëral ci ay lal lekk ga muy lekk par weer mën naa passé deux millions par weer te loolu def ko ci nit nag moo gën ñi tubaab tubaab tamit di doomi tubaab yu ñuul yi ña ngay roy loola tamit koo ko gis ma nga wut ponkalam xaj rek wala ne kër ak tubaab laa yaa perte yonent bi nee képp ku jàpp xaj ci lu ñetti xaj yooyu ma limal la sa jëf ji bët bu set kilo dana ci wàññeeku xiraat la wax mag ñi di ko firee kilo wala bërigo wala ton lu la ci neex firee ko léegi-léeg beneen riwaaya ba ñëw ne xiraa taani bët bu set ñaari ton wala ñaari kilo wala ñaari bërigo dana ca wàññeeku mu set ca nag ne ba mooy xaj bi lay gardeel sa mbay mi demeet ak xaj bi lay wattul ak xaj bi lay rëbbali ñetti xaj yi rek la sariya daganal yéen seen gis yëpp nag baaxul léegi-léegi nag nit bu yoree jikkooy xaj faaw mu bëgg xaj moo ci gën a bëri boo yoree jikkooy xaj rek da nga bëgg xaj mënoo ca dara ngeen a niroo jikko ndax inna tuyura ala asnafiha taqaw loola kon moo ci bëri moo tax sama borom ne yasalunaka dana lu laaj la yow sayduna muhammad maada uxila ana lan la daganaleef lahum ñeexal leen ci xeeti ñam yi qul waxal ne uxila daganaleef na làkkum ñeexal leen a tayibaatu way teey yi wamaa ak rëbb lépp loo xam ne àllamtum xamal ngeen ko minal jawaarihi ci xoob yi mu mukallibiina mbir mi ngeen di way xiirtal leen ca rab wa tuallimuunahunna mbir moomu da ngeen yar leen ma kom ci li nga xam ne xamal na leen ko laahu yàlla ci yar ak rëbbu ci teggiini rëbbu fa loo lekk leen mimmaa am sag na ci li nga xam ne ngëbal nañu alaykum ci yéen lañ leen jàppal waaye waxuma lañ jàppal seen bopp bu ko defee nag waskuru na ngeen tudd ismalaayi turu yàlla alayhi ca hebal ga wattaqu na ngeen ragal laaha yàlla inna laa naka yàlla sariixul xisaab bi ku gaaw la mu rek la jaam yi kem genn wàllu bëccëg rek kenn ku ne jël sa lusma al yawma tey uxila dagana leef na làkkum ñaar leen tey baatu way teyi wa taamu lasina ñami ña nga xam ne te mooy reen la ca namm wa taamu la reen dig ña nga xam ne uutoo joxe na leen alkitaaba téere ba mu yahut ak nasaraan seen ak reen di xillun aji dagan la làkkum ñaar leen wa taamukum seen ak reen di tamit xillun aj dagan la lahum ñaar leen wal muxsanaatu gor ya minal muminaati ci way gëm ña dagan na leen wal muxsanaatu gor ya minal lesi ci nga xam ne wutu joo xam ne alkitaaba téere min qablikum la leen jiite woon yahoot ak nasaraan seeni gor yi dagan nañ leen yéen jullit ñi waaye seen jaam yi di jéebéer ya daganul leen kañ lay dagan nag ida ataytumuhunna ndem jox ngeen leen ujoorahunna seen can ya muxsinina mbir mu ngeen di way denc leen muxsinina ngeen di way denc leen xayra musaafihina te mbir moomu duhu leen way feeñal ak njaalo ca ñoom wala muttaxisi axdaanin nekku leen tamit way jàpp leen ay xaritu biir te mooy di njaalo di ko nëbbu jël ay overseeg yu mel noona wa man yakfur képp koo xam ne dafa weddi bil imaani ci ngëm te mooy murtat faqad habita sippeeku na amaluhu jëfam ju baax ja wa moom daal fil axira ci àllaaxira min al xaasirin bokk ci way perte nga bu ca deexee kon gis nga ko aaya jàngoog yàlla di ñu jàngal li dagan bam ne dañ lay laaj li dagan dafa ne ko uhilla lakumu tayibaat tayibaat nag yu teey ci Malik mooy lépp loo xam ne alquran na ñëw wax ñu dagan nga wala sunu yonent bi ñëw waxee dagan nga waaye tayibaat ci Shaafi'i yu mooy lépp loo xam ne rek xel bëgg na ko ndax ñaaree lépp lu yàlla daganal rek xel da koy bëgg bu ko xel bëggee ba lekk ko dafay baax tamit ci santé waaye ñaaree li yàlla xaraamal lu ne xel fa koy bañ bu ko xel bañee tamit ba forcé ko boppam lekk ko tamit mu def tamit ay jàngoro ca yaramam wa mënoo ca dara kon noonu la imaamu saafi yu déggee tayibaat noonu tamit la ko imaamu malik déggee kon xamul lenn lu yàlla dagana lu lu baax ci jëmm baax ci xel baax ci xol baax ci bakkan xamul lenn lu yàlla xaraamal lu bon ci jëmm la bon ci xol bon ci xel bon ci bakkan bañ bon ci rooxu demeet daganal na tamit nga yore sab jàngal ko nu ñuy rëbbee ba boo ko xirtalee ca rab wa mu dem boo ko teree mu bàyyi xaj booba walla xoob woowa lu mën a doon dagan na bu la rëbbalee nga lekk waaye na fekk nag nga jàngal ko ko jàngal ga nag bay tax bu rëbbee nga lekk ñetti màndarga la bi ci njëkk mooy soo ne ko xirtalee ca rab wa rek ne turo rek ne bisimilaay mu dem soo ko ne teree mu bàyyi ñaareel ba tamit lam jàpp du ko lekk ndax bu la ko jàppalee du ko lekk waaye bu ko jàppalee boppam nag da koy lekk waaye loo koo xam ne bu lu mu jàpp lekk ko soo ko xirtalee mën na laa wër juróomi yoon door a dem boo ko teree du bàyyi booba xaj wala xoob bu la rëbbalee doo ko lekk te Cheikh Khalil ci buntab rëbb wax na ca wax yu sew na fekk ba nga ni ko xirtal ca ca saasa rek la dem waaye boo ko ca xirtalee mu toog a toog lu yàgg door a dem tamit du mën a dem na fekk maanaam yéexamtu lu hut ah, te na fekk tamit boo ko jàjjee mu bàyyi ah bu jàppee rabo tamit na la ko andil waaye nag moo tax ma ne fa kuloo bi maa am sag na aleykum waaye nag waaye du nag maa am maa loo xam ne daf koo jàppal boppam lu mu jàppal boppam kay nag wax dëgg yàlla mooy lu mu jàpp ba pare di ko lekk. su fekkee ne nag léegi xob yooya xéegal nañ ci fetal xéegal ci fet ak xéegal ci yeneen yi lépp loo xamee na ni sa jot sa sa loxo jotiwut ca nga koy jottalikoo jumtukaay boo koy tiiree ngay wax bisimillahi rek dàq ko su ko jamee soo fekkee deewut rendil soo fekkee mu dee man ngaa lekk bu la ko xaj xaj bi rëbbalee tamit jàpp ko mu dee man ngaa lekk soo fekkee deewut rendil yëpp moom ngay moo cay mën a dëppoo nga door di ko mën a lekk su ko defee tamit mu ne nag lépp loo xamee ne nii ak rendi la ab yahud rendi ko wala nasaraan rendi ko mu nekk lu ju dagan bu rendeem xar wala bëy wala nag wala yu mel noona mu loj bëy kon na walla wala mu rendi xar wala nag wala bëy wala ganaar doonte ab yahud la wala muy ab nasaraan ci seen làng ya ñu koy waxee dagan naa lekk muy njabootu yonentu yàlla Muusaa gi yonentu yàlla Isaa gi naka noonu tamit ñun suñu rendee mën nañoo lekk ñoom seen góor ya ñun mën nañ leen a takk waaye ñoom mënuñoo takk suñ góor yi mënuñoo takk suñ jaam yi ndax kat yow mii comme yow yaay kil yaay kilifa ki boo takkee ji jigéen fekk moom gëm na yàlla gëm na ab yonantu li ko dese mooy sa yonantu bi la gëmut bu nawee sa diine rek dana la fekk si kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara waaye nag bu ca nekkee nga denc ko mu ngeen di dencante ba dee am tuubut doo ko donn moom du la donn doomam yam bàyyi tamit bu ñu àndeek yow duñ la donn duñ ko donn bu ñu àndeek moom tamit yow duñ la donn kon yooyu yëpp dafa jar bàyyi xel bala ngaa takk jigéen gi nag ku mu ci ñoom wala ci suñ jigéen ñi lee joxeel can wa atu nisaa sadduqaatihinna nihilatan can la ca gën a bëri xamul xàpp mi ngi yem ca kem sa bëgg-bëgg ak sa kem sa man-man la ca gën a tuuti nag moom ci xàq ndaw sa mooy rubon la ca gën a tuuti ci xàq ndaw sa nag gannaaw rubon dinaar ba tamit mi ngi xaajowee kem sa man-man ak kem sa bëgg-bëgg ndax can ñaari xaaj la xàq yàlla ak xàqi ndaw si xaq yàlla ja nag mooy rubon dinaar ba mënoo koo ñàkk joxe euh, boo ko doon gam-gam le nag mën ta bëree bëree bëri ba passé vingt mille francs mën ta bëri sa ba passé quinze mille moo tax li gën a wér booy def can laajal quinze mille mbaa nga laaj vingt mille ndax can xëpp du ko yàq waaye manqué dana ko yàq su ko defee nag buy ci masabu Shaafi'i ak Abu Hanifa boo jëloon aw dàll wala ab jaaro sax canee ko soxna si ngeen juboo ca nang nang na ngir soxna sa ñëwoon mayoon boppam yonantu bi yonantu bi yëg ne gannaawam diis na benn siisi siise booba sax si siise xewagut waxin la ne ko boo jékkuwut jekku naa yonantu bi ko ah kon nga ko lu mu ko laaj mu ne ko aw ma ko lu mu ko laaj mu ne ko aw ko bam laaj ko walaw xaataman dan mu ne ko aw ma ko mu ne ko kon loo mokkal ci alquran mu wax ko ko mu ne ko jàngal ko ñaari saar yi gën a suufe ci alquran mu nekk can nga kon da ko doon laaj liñ gën a seer amut ko bañ mujj daanu ci li gën a seer alquran moom benn aaya mu ëpp milliard kenn du ko comparé sax mu ne tamit na fekk bu leen leen jàppee ay xaritu biir xaritu biir mooy njaaloo gu ñuy nëbbu njaaloo goo xam ne yéen a ca nekk rek kenn xamu ko xanaa yéen ñaar xanaa ak nandite ya joxante rendez ca hôtel ya ca auberge ya wala léeg-léeg heure bi ngay ñëw kenn du ko yëg mu heure bi muy ñëw ci yow kenn du ko yëg kooku mooy njaaloog biir kooku lay wax ne a xayra musaafihina waaye nag mooy mooy mooy mooy njaaloog mooy njaaloog mooy wala kooku mooy wala mu taxisi ak daanin mooy njaaloog biir guñ nëbbu gépp mooy yàlla gu ñuy nëbbu rek muy ak njaalo kooku mooy mu taxisi ak daanin su fekkee ne nag yow la ngay def na boo ca dara digg ba ca ngay ñëw ngeen nekk ca walla mi ngi leer naan ñi nga ñëw wala moom muy ñëw wala fa ngeen dajee public bi yëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ne kii sa far la xam nañ ne yow tamit faram nga kooku mooy xayra na kon ku mu ci ñaari bon na gis nga kon jël na njaalo nirale ko safaax safaax mooy turkatu deret dañoo niroo kii tur deret ma ngay neenal deretu nit ña kii njaalo tamit bëgg-bëggam lépp duwut am doom ju baax waaye dafa seet rek fu mu mën a tuur mën ni yomb ma moo tax yàlla tuddee ko fii musaafix kon njaalokat garaaw na baat biñ ñu daan appliqué muy tur deret moom la ko yàlla appliqué fii muy xayra musaafixiina murtat tamit képp ku ko def soo xasee ba dee ca murtat ga li nga amoon ci lu baax lépp yàqu na bu ko defee nag bu fekkee deewoo ca la nga amoon yàquwut loolu la saafi yu gëm maanaam boo ca deexee kon ma saafi dafa ne soo ca deexee la nga xamoon ci lay door a yàqu Maalik ne boo xasee murtar rek dee nga caag deexoo ca li nga xamoon lépp yàqu na soo duggaatoon léegi fekk bi ngay murtar yaa ngi njàpp lu tooy la sax yàqu na donte defoo luy toj njàpp sa yi nga takkoon yàqu na sa yoonu màkka ya yàqu na xajaatal sa koor yi nga kooroon yàqu na waaye saafi yu ne na boo ca deexee Maalik ne donte deexoo ca. kii dafa jëfandikoo mutlaq kii jëfandikoo muqayyad Malik dafa jëfandikoo mutlaq aaya ji dafa rek wa man yakfur bil imaani faqad xabita amaluhu wa huwa fi l axirati min alxaasirina fa tinki waaye tënkut jeneen aaya ji nag dafa ne wa man yartadi minkum an diinihi fa yamut wa huwa kaafirun la loolu la wax nga dee ca la wax de su boobaa nag ci ulamaa usul danañuy nangu jël lu ñu tënk xaj ko ci lu jël lu ñu tinki xaj ko lu ñu tënk li kon ci ulamaa ñu ci bëri dañuy jël aayaab wa man yakfur bil imaani faqad habita amaluhu xaj ko ci fa yamut wa huwa kaafirun baqara xam nga nag saafee yu usuli yu la moo tax moom dafa jël aaya jële ak ko ci ji aaya ji dafa jël mutlaq ji ak ko ci muqayyad ji moo tax mu ne boo ca deexee maalik na même boo ca deewut li nga xamoon ci lu baax lépp yàqu na loolu mooy seen gis moo tax mu ne man yakfur bil iman faqad habita amalu wa huwa min al-khasirin aaya ji tegu ci yàlla ngi wax su ñu bëggee julli faw ñi préparé ko laab laab giñ koy préparé lee ñaar la laabak ndox su fekkee xam nañ ko tam nañ koo jëfandikoo suñ ko xamut wala ah kay xam nañ ko waaye mënuñ koo jëfandikoo ngir ragal susug feebar mbaa dooleeku feebar mbaa yéex a wér su boobaa nañ ko remplacer tiim loolu la alquran wax moo xam nag ba ngay préparer julli gi ngaa yore janaba te amoo ndox tiimal xéenee xaj janaba ji mbaa xam nga ndox waaye mënoo koo jëfandikoo ngir ragal susug feebar mbaa dooleeku feebar mbaa yéex a wér tiimal xéenee xaj janaba ji wala amee woo janaba tamit tiimal mu remplacer. njàpp la rek mu jeex loolu moo gis ci alquran moo tax mu ne yaa ayyuha alladina ee yéen gaa yi nga xam ne amano gëm nañu alquran ida qumtumoo su ngeen nammee jug ila salaati jëm ci julli faxsiloo na ngeen raxas wujuhakum seen cëlmaa yi wa aydiyakum ak seen loxo yi ilal marafiqi jëm ba ci conc yi bu la neexee nga def ilaa mu amee maanaam maa kon wa na ngeen raxas ay diikum seen loxo yi ilal marafiqi mu ànd ak conc yi ni ko sunna waxee wamsahu na nangeen masaaye bi ruus na ngeen masaa bi ruusikum seen bopp yi baawu ilsaaq la jël leen bopp yi laalale ko ndox taqale ko bu ko def jël leen loxo yi taq maanaam laalale ndox taqale ko bopp ba masaa ca bi maanaa alsiqul masha biha waaye tamit wa na ngeen raxas ju arjulakum seen tànk yi da ko ataf ca ay aydiyakum ja waaye atafut ku ci aussi ruusikum ji bu ko ci atafoon da koy jar bu ko defee ilal kaabayni mu ànd ak dajoor ya te mooy ñaari yax yi nga xam ne dañoo facci nekk ca peer ba wa in kuntum bu ngeen nekkee junuban di way yore jaraba fa tahiroo na ngeen laab mooy sangu leen waaye nag sangu nag ñëpp mënuñ ko ndax boo feebaree ba mënoo jëfandikoo ndox mi doo sangu moo tax mu ne wa in kuntum bu ngeen nekkee mardaa di way feebar aw ala safarin mbaa ngeen nekk ci tukki feebaru leen waaye xamu leen ndox wala yéen a ngi feebar xam ngeen ndox waaye mënu leen koo jëfandikoo aw jaa wala dikk a ahadun kenn min kum ci yéen minal gaayiti bàyyee ko ci dem joor aw laa laamastum baa ngeen jonjoog a jigéen ñi te jotee la ci namu falan tagidoo te amu leen falan tagidoo amu leen maa am ndox kon ci yépp fa tayamamoo na ngeen tiim saidan ci suuf tayiban boo xam ne bu laab la tiim nag mooy lan mu ne mooy fam sawoo nangeen masaa bi wujuhikum seen cëlmaa yi waaye di aydiyakum ak seen loxo yi ànd ak conc ya minhu ca dóor ba lu tax yàlla nag nga nga defal ñu lii bu ñu amul ndox nañ tiim bu ñu xamee ndox mu mënuñ koo jëfandikoo nañ tiim donte dañoo xamee janaba mu ne maa yuridu namut laawu yàlla léegi xala ngir na def alaykum ci yéen min harajin ci benn tiis defu ko de walaakin li fi nekk yuridu dafa namu lu yu tahirakum ngir mu laabal leen ci hadas laabal leen tamit ci bàkkaar wala yu timma ngir na matal ni'matuhu xéewalam alaykum ci yéen laallakum bastale yéen tashkuruna ngeen sant xéewali yàlla yi de kon aayaat yooyu loolu la ci mbëmbëstël mbëmbëstal na ci njàpp mbëmbëstël na ci sangum janaba mbëmbëstal na ci tiim te ñett yi moom la ñuy préparer julli soo bëggee julli fekk yaa ngi yore janaba mu laaj sangu sangul ndeem xam nga ndox te mën koo jëfandikoo soo xamul ndox te mënoo koo jëfandikoo tiimal nga yéene yëkkati janaba ji nekk ci yow soo xameewul janaba bëgg a jàpp te ndox wala xam nga ndox waaye mënoo koo jëfandikoo ngir ragal susug feebar mbaa doole ko feebar ak yéex a wér tiimal nga koo daganal ca julli ga ca moom su ko defee nag su fekkee tamit yaa ngi tiim nuñ koy defee dóor sa ñaari loxo yi ca suuf masaa bopp ba masaa kon xar-xaram ba su paree nga dóoraat masaa loxo ya xam ñu wax ne wenn yoon dong la ñuy dóor masaa ca xar-xaram ba masaa la ci tamit loxo ya nañuy sangoo janaba tamit alquran waxut ko fa wax rek ne sangu leen janaba sunnaa ñëw ne ku bëgg a sangu janaba hutal ndox moo xam ne caf nga ga ak couleur ga melaw wa dara soppeeku hut ca ndox rek lay saf couleur ndox rek la yore waaye tamit melaw ndox rekk la yore couleur ndox rekk la yore caf ngaa ndox rek lay saf moom tamit lay xeeñ moo tax Seex Xalil ne ndox daal maa sadaqa ismu maayin bilaa qaydin loo yore nga ne ndox boo ne ndoxam rek mënut ndoxam sonvara ndoxam gëtt ndoxam parfum mënut waaye ndox rek léeg-léeg nga ne ndoxam fekk ndox rek la nag ndax léeg-léeg nga ne ndoxam géej ndoxam taw ndoxam asa ndoxam ndoxam teen ndoxam robinet waaye loolu ndox rek la nag ngaa bëgg a wax ne rek ndox laa yore waaye ca teen ba la bàyyeekoo. ndox laa yore ca taw ba la bàyyeekoo ndox laa yore ca robine ba la bàyyeekoo waaye dugul ndoxam ndoxam moom mooy dafa am lu ci rax si lu ca bokkut lu ca rax si nag te bokkut ca bu dëkkut ak moom xaaliban dañuy seet ndax lu laab laab lu laabut la su fekkee lu laabut la duñ ko mën a jëfandikoo ci dara tuuri rek su fekkee lu laab la dañ ko mën a jëfandikoo ci aada sangum wàcc tool fóot yére yu amul sobe raxas sa otoog yooyu waaye day ci ko jëfandikoo ki jaamu yàlla kon ndox xatteem jeex na loolu la ndox mooma nag moom ngay jël raxas sa loxo ya ca biti ndox ma bu ko ca dugal yonentu nee na sa loxo yi xamuñ fu mu fanaan boo ko raxasee ñetti yoon nga raxas sa kanam gi yow muy jigéen mbaa muy góor ba mu set wecc nga daree sa jumbax ba ki say bët kanam ak gannaaw bul ba dara nga jàpp jàppal benn benn raxasaatal loxo taabud la li tax ñu la koy raxasloo xamuñ ko bu doon set rek set na moo ki doon jàpp ba pare di commencé aan njàpp tamit day raxasaat loxo taabud la soo ko defee ba pare tamit cër bu ne benn yoon baa nga masaa bopp korokoroy nopp nga dugal sa loxo yi ci ndox mi laalu dara wala nga dékk ci robinet bi téyewu dara nga jaarale ko ci kanam gannaaw ca bopp ba ba mu mat karaw ya ya hubbeeku woon tëju nga door koo tànk ñoom ñaar ba mu fees nga tàpp ko ca bopp ba ba muy ñetti yoon ànd ak di ragg xaaj sa wàll ak ndeyjoor commencé ci yóbbu ngaam waak nopp ba yóbbuwaale mbagg maag xuru gannaaw wa yóbbuwaale faar ya ak legg ya jëm ba ca dajoor ya nga def noonu tamit wàll ak càmmooy ga su paree nag nga door a raxas la ca dajoor ba ba ca suuf ca tànk ba ca ndeyjoor ba paree nga def càmmooy ba njàpp la mat sangum janaaba ma mat lii mooy sangu mooy sangu bi lislaam bëgg ma gën a yomb duma ko wax nga nekk fi di bàyyi bii di dem defi bale bii kat jafewut ni nga def mën a dugal crédit xam bu ni siñ la envoyé xam ñaata message nga am sa crédit bi ñaata ci des genn wàllam boo ko defee xam ko diine dañ koy jàng kenn du ko fooyee njàpp nag moom wutal ndox mi ma la waxoon rek ko defee nga raxas sa loxo yi ñett ñett ndeyjoor ñett càmmooñ ñett kon raxas loxo rek juróom benn la ndax benn bu ne ñett la galax ndiku ñett yoon sorox ñett fiiru ko ñett fiiru mooy génne ndox ma duggoon ca sorox ga nga sëlmu yaatuwaay beeg gudd ñaay bi yépp bu ca ba dara xóot xóot yaag sukk bakkan ba bul ba dara nga raxas loxo ba ca cooncu la ñett yoon càmmooñ ba noona nga masaa bopp koro koroy nopp raxas tànk lii mooy njàpp boo ko defoon ñaar ñaar baax na soo ko defoon benn benn tam mat tamit baax na waaye njàppal benn benn Cheikh Khalil nee na boroom xam-xam rek ko war a def koo xamut xam-xam boo njàpp njàppal benn benn dana manqué kon njàppangoog tiim nag fàkkeexal suuf ci sa loxo yi ne ràpp ñaari suuf loxo ya boo ragaleen dara xaju ñette nga fëgg leen xarxaram la jëm te dafa tedd nga masaa ci xarxaram bi yëpp ba mat lool yaatuwaay baag lépp bul ba dara sukk bakkan baag xóot xóotu bët ya su paree nga dooraat masaa loxo ya ba ca tikku njara ya xen waxaale ko mu jëm kaw ba ca cooncu la dugg ca biir ténk ya dugg ca diggante baaraam ya bul fàtte xalit ga na nga defee ko ndeyjoor ba nga defee ko càmmooy ga tiim nga mat na lii mooy njàpp lii mooy tiim aayaat yii yàlla wax lii lañu ci doon mbëmbëstalee pour ñi mën koo préparer julli balañ caa dugg ndax julli dafa foor ku cay dugg war nga koo préparer ak laab kon ndax da war a diyaale ak sa borom njàpp nag loo am doole la ñii dañ ne taxabul la ñi ne illa la ñu ne taxabul la yonentu yàlla aadama sama borom moo defoon garab gi tere ko ko ne ko wala taqraba hadihi shajarata ak sa soxna xawaa seytaane man ma ne ko hal adulluka ala shajaratil xuldi wa mulkin laa yablaa ba mos ca loola ñu ne fa la njàpp commencé dox gam doxoon jëm ca jëm ca garab ga moo war a raxas tànk xool gam ko xooloon ca bët ya moo war a raxas xar-xaram nopp yam ko doon dégloo moo war a koro koro nopp bopp ba tiimoon garab ga moo war a masaa bopp loxo yam dugaloon di dog moo war a raxas loxo mos gi ko mosoon moo waral galax ndiku fóon ngaa waral maanaam sorox ndiku moo tax bàkkaar boo mën a def ci sa cër yi ma tudd soo njàppee rek fay rob àndaaleeg ndox ma loo defoon ci loxo ba nga raxasee loxo rek yonantu bi nee na bàkkaar ba day root àndaaleeg ndox ma nga gallaxndiku ndiku mu root àndaaleeg ndox ma loo waxoon ci sa gémmañ nga sorox ndiku loo fóonoon wàcce ànd ak ndox ma nga nga nga sëlmu loo xooloon wàcce ànd ak ndox ma nga masaa bopp loo xenoxoon waaye xal li jàmbur yi ñu sàcc bokkut ci de loolu xàq jàmbur la lu may wax nag mooy loo tooñ sa digganteeg sa borom waaye sa morom bokkut ci demeet ba mu jeex ñu ne nag taxabul la yàlla digal nañu ko rek waaye xamuñ la bu tax mu digal ñu ko waaye gis nga yàlla kenn du moom yaa ngi nii dafa wax ne boo demee joor wala nga tuur ndox ak ya ca xaju demal nga jàpp mu ne boo génnee mën yu wala nga jonjoog jigéen donte mën yu génnut waaye jonjoog yi am na rek ba seen awra yi ànd demal nga sangu lu tax nag génnee dugub ak génnee ndox mu jàppalooñu ci génnee nag mën yu te moom benn place bi la moom mu sanguloo ñu ci ñu ne duñ benn ndax kat mëniyu buy génn cër yépp a koy yëg bànneex ba cër yépp a koy yëg moo tax mu raxas loola cër yépp waaye nag euh, euh, booy tuur ndox wala ngay dem wanag place ba muy génnee rek nga koy yëge waaye yeneen cër ya du ko yëg lii mooy xikmatu bi tax yàlla sanguloo loo ci jana ba jàppaloo ñu tamit ci jàpp bu la gaaree kenn du yàlla kon moo tax wa arjulikum la wax arjuluk jooju arjulakum ñetti njàngin moo ci am ñaar ya siiw nañ benn ba dafa néew benn ba shaadatun la bu néew bi mooy rafu am ñu jàng wa arjulukum kooku nag xasana ko jàng moom kenn jàng mu néew la ñaar yi nga xam ne nag mu mutawaatirataani lañ mooy nasab ak jar wa arjulakum am na ñu ko jàng wa arjulikum am na ñu ko jàng ñu jàng nag arju arjulakum mooy naafi kooku mooy warsh ibnu amir moom la jàng kasaayi moom la jàng asim moom la jàng mooy riwaayatu xafs juróom-ñaari njàngin ya yaquba sax moom la jàng ci ñetti njàngin ya yaquba moom tamit arju arju arju lakum la jàng jar gi nag ba tey ñi ko jàng bëri na ibnu kathir arju likum la jàng xamsatu moom la jàng abi omar moom la jàng asim moom la jàng ko mooy riwaayatu abi bakrin léegi nag su fekkee dangaa jàng nga def arju lëkkum su boobaa lënt xamut ca dañ ko ataf rek ci ay diyakum waaye boo gisee ñi doxale nag ci diggante xataf gi bi ruusikum tartib baa tax ci la boroom xam-xam jëlee ci aay ji ne njàpp dañ koo war a toftale toftale ga dafa war ñii ne dafa war war ak farata ñii ne dafa war war ak sunna Maalik nag sunna la ko jàppee toftale ga buñ taf fa toftale ga ci la bokk waaye buy saafee yu toftale njàpp dafa war far force boo ko defu day yàqu mu raxas loxo boo ko ci bàyyee koo maanaam masaa bopp raxas tànk ndax noonu la ko yàlla toftale faxsiloo wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi dégg nga de fam famsaxoo bi ruusikum wa arjulakum door a ñëw kon toftale gaa tax mu jël ruus doxale ko ci diggante bi ndax moom lañ war a njëkk def door a raxas tànk su ko defee tamit su fekkee da nga koo jar ne wa arju likum moom la saafe gëm buy saafe yu kon moom da ko ci ataf moom dafa gëm ne dañ koo ataf ci ruusikum ndax moom la gën a jege ci lañ koy ataf ndax dañ koo jar moom la jàng moo tax moom tànk ci mazhabu shafii yu kenn du ko raxas dañ koy masaa ñoom loolu lañ gëm dañu masaa tànk dañ ko dañ koy dañ koo masaa waaye ànd loolu lépp boo ko jëloon ci naxu même suñ ko jaroon sax terewut dañ koo war a raxas loolu la Maalik gëm ndax xaddiis yi ñëw ci sunna di wane ne tànk dañ koo war a raxas dafa bëri yonent bi fekk na saxaabaam yi ñuy jàpp ñenn ña bàyyi seen testin la mu ne waylun lil aqaab hee xurwa ca safara ñeel na kuy jàpp bàyyi tistin ci la gaa yi commencé nag bu ñuy jàpp di ko xool di ko settantal bu baax a baax bañ dara manqué ca loola waaye su boobaa même boo ko jaroon terewut dañ koo ataf ca ca maanaam ay di yëkkum waaye nag dañ koo jar jarag mu jaawara ñu jàng naxu ñoo xam jarag mu jaawara lim dëkkaaleeg di ruusikum tax nga jar ko loolu bëri na ci alquran azabun alim boo gis ci alquran yépp jaru mu jaawara nga ne bu ne azabun alim mu jël alim di ko kasra waaye waaye waaye eh, maanaam azabi yawmin alimin azabi yawmin xam nga ne alim jooja da koo kasra te pourtant naat la ci manuutam azab man dafay manuutal azab te azab dañ koo nasab waaye dëkkaale gi mu dëkkaale yow mi ji moo tax maanaam ñi kasra ko kon loolu bari na ci waxinu arab bari lool tamit ci alquran loolu du jeex bari na ci langue arab bari na ci alquran nga fekk lu ñu war a nasab mu dëkkaaleeg lu jar ba pare nga far jar ko am na ci ataf am na ci naat am na ci lu ne yaa ngi koy dégg ba ñu jàng ajurum sëñ daara Cheikh Moodu mu la koy misaaleel haada joxru dabbin xaribin waxul xaribu de te pourtant xaribu jooju naat la ci joxru waaye nag yaa ngi ko jar ngir lim dëkkaaleeg mbëtt mi mbëtt moomu ñu jar mu dëkkaaleeg moom moo tax nga ne xaribi am na ci waxi imrul qaysi mu ne ka anna ka anna sabiran fi aranini wadqihi kabiru unasin fi bijaadin musammili musammili de pourtant naat la ci kabiru ji waaye mi ngi nii da ko kasra ngir lim dëkkaaleeg bijaadi fii bijaadin ji gis nga ko tamit bëri na ca wayu ziram la am na ca ma ngay wax ne tur yi ka sannata wajhin eh, eh, maanaam gayra mufaraqatin malsa alaysa biha xaalin wala nabbi kon gis nga ko gayri la wax ngir lim dëkkaaleeg wajhu gi waaye fekk gayra la ndax naat la ci sanata ja dana la wan maanaam turika sanatu dañ ko waroon a daam mu ne xayru moom mu ne xayri ndax lim dëkkaale ndax sanatu wajhin moo tax mu ne xayri xayri mu faraqatin xayri mu mu qarafatin du jeex gis nga ko imrul xaysee ngay wax naan wasallatuhaatu lahmi maa bay na mu bayna mundijin safifa shawain aw qadirin muajjili foofa yëpp fekk na tabaarakallaahu lu ñu waroon Euh, jar mu ñëw nasab ko kon loolu bari na ci langue arabe noonu tamit la bëree lool ci alquran foo fekk ci alquran rek fi yow fi yow mi nangam rek xamal ne loolu jaru mu jaawara la dégg mu ne mu ne azaaba yow min alimin xam nga alimin ji mi ngi nii kasra ko fi ngir lim dëkkaale yow min gi ñu jar waaye pourtant nasab la laajoon ci waxi ndax naat la ci azaaba ji du jeex. kon loolu moo dal maanaam boo jàngee wa arju likum boo jàngee wa arju lakum xamul lënt moom leer na nañ ci lool ca ca wàllu woow moom kon njàppangoog wax na ko bam ca bàyyeekoo nag mu ngi indi aaya ji ne yaa maanaam waskuru ni'matallahi alaykum sababu sol bi boroom xam-xam yi wax yu bari lañ ci wax waaye xamaan na yooyu yëpp di benn yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama ca xatam juróom-benneel ca gàddaay ga bam fi bàyyeekoo ko ñooña hitte hoohoon nañ pour ñi gaaw ko ca ca Hudaybiya mu bëggoon a umra ji hitte hoohoon nañ ngir ray ko ca waaye sotti wut xitteewoon nañ benn jigéen yahudiyatu laaj la yonentu gën a bëgg ñu ne yàpp lu mu ca gën a bëgg xeel mu jënd ab gàtt tooke ko xëppale tooke ja ca xeel ja ñëw ne ko tey bisab xare la maa la ko teralee yonentu bi yëkkati ci la wax ne yëkkati leen seen loxo yi gàtt bi xamal na ma ne dañ koo tooke ku ñu tuddee baraa yàkkamte woon na mos ki la doxee moom génn àdduna bi ci tegu tamit amoon na kuñ rey yonent bi dem doon lebi pour luñ ko diyaa ci ay yëhoot ñu ne ko toogal léegi ñu ñëw mu yéeg ci kaw étage ab mu toog ci ron étage bi koo ko jël benn xeer wu mag bëgg koo wadal ci kawam ba jibril moo ko wan mbir mooma noona ci la doxee sax firi kóllëre gi nga xam ne façon na ko ak ñoom ca yëhoot ya kon aaya ji sababu nusool ba lu baree bari la dugalaale ne fépp fu ñu bëgg a defee yonent bi lu bon rek yàlla nasaxal loola ba sottiwut waskuru ni'matallaahi alaykum ji dugalaale na ko te loola tamit lu baree baree baree bëree bëri la ay yoon yu baree baree bari la yoo xam ne soo ko doon lim dana bari moo tax aaya benn aaya la waaye la boroom xam-xam ya dajee ne mooy sababu nusoolam fa bari lool fa bari lool ngir lim ëmb moo tax mu ne was waskuroo fàttaliku leen ni'matallaahi xéewal ak yàlla aleykum ci yéen ci lislaam ni'matallaahi xéewal aleykum ci yéen wa misaaqahu ak ak kóllëreem la si nga xam ne waasaqakum ku lant ne bii ci moom isqultum ba ngeen waxee di jaayanteeg yonantu bi ca xudaybiya wala ba ngeen waxee di jaayanteeg moom ca xaqabaat ya wala ba ngeen di jaayanteeg yàlla ca aalamul arwaax yéena waxoon ne sa naa dégg nañ sa wax ji wa ata'na topp nañ li nga xam ne yaa ngi ñu koy digal moo xam bëgg nañ mbaa bëgguñ ko kon wattaqu na ngeen ragal laaha yàlla ci matal kóllëre ga bu leen ko firi inna laa naka yàlla alimun xamaa kon la bi zaati sudul nekk ci jëmmi dënn yi de alimun aji xam la bi zaati su nekk jëmu dënn yi yaa ayyuhal lazina gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañu alquran koonoo nekk leen xawaamina di way taxawee lillaahi ci xaq yàlla ji suhadaa ngeen di way seede bil xist ci seede ak maandu wala yëri mën na ko bu mu togg leen sana aanu qawmin mbañee law aw nit muy xéeféer yi allah allah taadiloo ci ngeen ñàkk a maandu iadiloo maandu leen huwa moom maandu aqrabu moo gën a jege li taqwaa ci ragal yàlla wattaqu na ngeen ragal la yàlla inna laaha naka yàlla xabiru ak dañ kumpala bi maa tamal li nga xam yéen a ngi koy def leen leen ko fay de wa ada dëhal na laahu yàlla dañu xam ne amanoo gëm nañ alquran wa amiloo ñuy jëf saalihaati farataaki naafila yi na leen dëhal gu rafet mu xasaf ko lahum ñaal na leen ba tey maxfiratun njéggal gu rëy rëy wa ajurun ak payoor asimun gu màgg muy haljaana walis na ñi xam ne nag kafaroo dañoo weddi wa dañoo weddi yàlla wa kasaboo ñuy fenloo bi ayat naa suñ kaawteef yi ulaayka yooye gaay ashaabul jahimi ñooy ma kon loola leer na kóllëre yaa ngoog sababu nusul bi ma la njëkkoon a junj nag mooy aaya ji door cee tegu yaa ayyuhal lazina aamanu ji yàlla maanaam aaya ji ma la doon junj di wax la sababu nusul ba nag mooy bii waaye bi ma la jàngal léegi nag mooy yàlla dafa bëgg ñi matal kóllëre yuñ kóllërante woon ak moom ci alamul arwaax bu ñëwee ci alamul asbaax bii buñ ko firi. wax na saaba yi kóllërañ kóllërante woon ak yonantu bi ca xaqabaat ya nga xam ne première bu njëkk ba juróom benn lañ ñaareel ba fukk ak ñaar lañ bu ñetteel ba juróom ñaar fukk lañ ak ñett ak ñaari jigéen ngeen ñëw yéen ay seen ay njaatigéem ca Madinatu Munawara na kóllëre ya mat yéen ñi jaayante woon moom ca taxta sajara laqad radiyallahu moomi muminina jaayante ga na kóllëre ga mat bu leen ko firi yàlla ne tamit ak ay xéeféer noonoo giñ leen noonoo def leen lu bon bu mu leen togg mukk ngeen ñàkk a maandu ci yéen ci ñoom déedéet maandu leen kon diine lislaam kenn du moom mooy diina joo xam dégg nga digal na la nga maandu ba maandu ci sam noon benn diine rek ko am mooy lislaam nanga nga maandu donte kii sa noon la bañ la tamit yow bu ko won ak mbañ ba xàtteel ko lu duhut dëgg mbaa nga jëflanteeg moom ci lu duhut dëgg yooyu yëpp yàlla nga koy bañ aaya ji ma waxoon la nag mooy sababu nusul ba mooy bani quraysata sababu nusul bi mooy yonantu tubi sallallahu alayhi wa sallama dafa génnoon ànd ak mbooloo xam ma ca mooy muy xaswatu si anmar ñu koy tuddee xaswatu zaati riqa mu jugoon ñoom ñëpp jullitu subaar mbooloo bañ jullee nag ba sëlmal xéeféer yi réccu ne xay ñun perte nañ di ñii de bu ñuy julli yëgatuñ dara foofu lañ leen doon fekk rek maasale leen rey leen benn yoon ñi jeex xam ku ne ay am na geneen julli guñ gën a fonk mu ngi ci kanam mu ngi julli tàkkusaan ndax mooy salaatul wusta googu kay bu ñëwee rek ñun ñëpp nañ leen fekk fa ñu sujjootee rek rey leen benn yoon avant waxtu way ñëw yàlla wàccee salaatul xaw xawfi mooy julleeg ragal ne nañ xaaj soldaar ñaari xaaj benn xaaj ba ilimaan jiite leen ñaari rakkaa ndeem dañuy matal ñu jug mottali seen bopp dem téye ji ngànnaay ya beneen xaaj ba ñëw ilimaan jiite leen ñaari rakkaa ya des ñoom tamit kenn ku ne mottalil sa bopp gannaaw bu ilimaan sëlmalee su fekkee dañ koy wàññi kuréel bu njëkk ba benn rakkaa la leen jiite ñu mottalil seen bopp kuréelam ñaaral benn rakkaa ñu mottalil seen bopp yooyu mooy salaatul xawfi léegi nag ba julli ga ñëwee ñu jullee ko nit ñi jaaxle xam ne yàqule nañ ñu ne loolu mooy sababu nusool bi mu yaay wala si am uskuru ni'matallahi alaykum idh hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum ñenn ngeen ne déeréet sababu sol bi daal mooy yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama dafa demoon ci bani quraysata dikkal leen ànd ak sayyiduna abubakar ak omar di leen leb diya ñaari jullit ñu ñu rey Omar nu Umayata ad-Dumari yu moo leen rayoon ci njuumte foogoon ne ay xéeféer lañ ndeke jullit lañ ñu ne ko toogal léegi tey ñu dagale ko jox la ko nam toogee rek benn xéeféer bu bon xéeg ca kaw seen état su kànq yooya dégg nga de te moo doon Omar ibnu euh, Jahash pour bëgg a waddal xeer wu rëy woowa wala weñ gu rëy googa ci kaw yonent bi mu génn àdduna am sax jibril na ko téenal mu téen mu ne ko xoolal leen sa borom fanqal dañoo amoon hitte daane ko ci sa kaw sa fan xem fi tay tay tay tay yàlla weddi na ko ne sa fan yow jeexagut kon xoolal li la yàlla fegal loolu tamit ci la yonent bi doxee firi kóllëre ga doxoon ci digganteem ak waa banu Quraysata ñenn ña ne yahudiyatu bële laajoon la yonent gënoon a bëgg ci yàpp ñu wax ko mu ne mu jël mu ne ay xeer mu tooke ko ñu ne moo tax aaya ji wàcc waaye ànd ak loola lépp jamtalu na moom aaya ji jamtalu na leen ñeen na ñene déedéet benn xari bu ñu tuddee zaatu imirin yonentu bi da doon daan doon ay saxabaam di sangu na mu wéetee noonu rek nag gannaaw bi mu solee ay yéreem wékk jaaseem ja ci benn garab tëdd waaj a ñëw euh, di xawrasu euh, di gàddu jaasi gi ne ko anakan moo tere tey ma faat sa bakkan yonentu bi ne ko yàlla ndax moom bu wéetee yàlla lay wéttalikoo bu wéetee bu wéttalikoo yàlla lay wéttalikoo waaja nag tiita tiita tiit ba jaasi ja far rëcc ko yonentu bi jël jaasi jooja ne ko ana kan moo ma faat sa bakkan mu ne ko xanaa nga gën ma rek yonentu bi ne ko demal jéggal naa la ñu ne loolu moo tax aaya ji wàcc waaye lu ci mu ne xam sama borom nee naa yaa ayyuhallazina yéen gaa yi nga xam ne noo gëm nañu alquran uzkuroo fàttaliku leen ni'matallaahi xéewal ak yàlla aleykum ci yéen id hamma ba hittee xawmu nit te mooy waa quraysin an yebbu sutoo ñi tàllal wala xawmu nit mooy banu quraysata wala xawmu nit te mooy kenn nit ku bokk ci eh, maanaam di xawrasu bokk ci musrikiina yi ba mu hittee woo an yebbu sutoo ñi tàllal ilaykum jëm ci yéen ay diyahum seen loxo ya yàlla fegal leen ko fa kafa feg na ay aydihum seen loxo ya xan kum walis leen su ko defee wattaqu na ngeen ragal laax yàlla waxal laaj ci yàlla dong fal yatawakkal na si sukkandiku al mu'minuuna way gëm ña yàlla dong moo sukkandiku su ko defee kon nag ayaat yaa ngoog ak pexe mañ bëggaloon yonantu bi te yàlla sottalut ko koo xamee na ni yàllaa koy wattu kenn mënu ko toroxal kenn munu koo lor ndax yàlla na ko wallaahu yaxsimuka mina naasi ba aay ja wàccee sax dafa ne yéen gardien yi ma doon garde dem leen yàlla may wattu su ko defee kenn garde ko kon ku yàlla musal di ab waliyoom wala yàlla musal ko muy ab borom xam-xam wala yàlla musal ko muy ab président walla yàlla musal ko muy ab yonantu ku ko nama rey yaay dee waaye mënuloo ko dara moo tax yonantu boo dégg ñu ne rey nañ ko rek yàlla déglu ko woon xeex ndax yàlla ku kum diggal xeex moo lay xeexle te ku yàlla lay xeexle kenn mënu laa rey moo tax innaa la nansuru naa kon aayaat yooyu aaya jooju loolu lay teg